Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman yawma ashura yawmi bisu tam xarit la ko tedd ki wax ni bisu tam xarit de sama bis la Xamna ndem ci wéru tam xarit wi ci la feeñee ci la delo won waxon nan ko xanaa li ni wax ak lin ci lin ci bëgg boole rek ba lin ci bëgg wétal wetal koy jéggu lu ko tedd ki waaye danoo jàpp ne dara génn ko moom moom lépp ak ñëpp donte lii ci li may bëgg a wax ci fan yi ci kanam la bokk sax waaye dama koy génne ndax dama ciy wutal aw Bakar Feggu Serigne Moussa Nawel ci Idrissa Seck e, moo tax bayit wii ku tedd ki wax ni waa yi bil xayri kulla mi wa kulla shahrin wa aqudu qawmi bayit wii ku tedd ki wax ni le bien de tous les jours ak tous les mois yàlla jox na ko ko ba tax muy guider peuple am waaw aqudu xaw mii gi yenara gi nga xam ne dafa wëcc nga xam ne moo mujj ci xawma gi ci baat bi yenara gi wëcc ci leeram ci laay wutal sa Seck aw Bakar Feggu ngir Serigne Moussa Nawel loolu itam dafa am lu ko waral li ko waral mooy damay dégg Idrissa Seck di wax xadd fekk kab la xadd ba fadd la fa zurru wala wa nafu jaay nga xam ne bu nag woon fi nu jaar maa moom itam faw ma am ci moom shawxa ngir loolu déggaat ko it mu naan yaa rabbi in ataytani fa shukru wa in manata fa riddan wa sabru hmm. kon ni ma amee la Macky soutien noonu laa amee la Idrissa soutien Macky dama ko amel soutien ci jërëjëf Serigne Bamba Idrissa itam ma amel ko soutien ci xasaayiti ko tedd ki waaw Bakar Fegg yu ma ko ciy defal nag Serigne Moussa Nawel dafa am loo xam ni yéene na ko ko te mënu ko waaw te man ku tedd ki man loo ma ko Serigne Moussa daf koy ñaanal man ma man koo bàyyee ñaan gi ba noppi moom man koo jàppale ci Zahir moom Idrissa loolu nag dinañ ko sax ca kanam loolu ci fan yi ci kanam am na sortie médiatique bu ma war a def boo xamante ne bi lii ci la waroon a génne waaye dama ko koo anticiper soutien la bu ma koy anticiper ndax li ku li chey in agel gis nga soutien yi ma doon apporter Macky ci jamono yi ci gannaaw yëpp gis nga ko waaw noonu laa amee la ñi nar a dooni candidat ñëpp ay soutien waaye ku ci nekk nag ak la nga yellool ak bu jotee ndax waxtu yi bokkul seulement li ma leen ñeewantee rek mooy coono yi ñu leen dugal li ñuy tuddee parrainage fu ne ñu fay war ci réew mi di wut ay signature di sonal ñi signe di sonn ñoom ci seen bopp coono yooyu yëpp mënoon naa ñàkk wax dëgg yàlla ñoom yi ñu waroon a def rek annulé yëpp wut beneen solution waaye lii yi moom yi ñuy def nii dara day yëngalum réew di yëngal xol rek waaye dara du ci solution dara mënu cee jur dara waaw réew dafay toll foo xam ne dañoo war a bàyyi xel la recommandation divine réew day toll foo xam ne bu ñu dee ay croyant dañoo war a bàyyi xel waxi ku tedd ki waaw waaye yii ñuy tañax tañaxi di ko def dara waaw day tax ak dal du am jàmm du mën a am nit ñi noononte te yooyu jaru ko àdduna jaru ko dund gi dafa gàtt lii daal ngeen baal ma tey wasalaam